Jeni gitelu, sen sen, rumi venkat teve. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a ci bopp xabar yi nag dañ koy rek conseil constitutionnel mi nga xamante ni rek ne nañ joxegul nag benn dogal rek ci lu ñeel kii di Barthélémy Diaz mu nekk xibaar boo xamante ne rek ne nañ daal dëgg benn yoon ginnaaw bu ñu gisee ne rek ne nañ kii di Barthélémy Diaz nag dañ ko daal di rejeté rek ci bopp coalition sàmm sa kàddu bi nga xamante ne rek moom moo fa nekk tête de liste ne nañ boobu lay xibaar nag dara du ca dëgg maanaam daal conseil constitutionnel daal di euh, na koy ci jëmee yi nga xamante ne rek déposé nañ ko ñeel élection législative yi nga xamante ne euh, fas yéene nañ ko amal nit ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre document euh, boo xamante rek mi ngi circulé moo dina nag li nga xamante daal moom la jot a gis kii di Serigne Modou Dieye mi nga xamante moo nekk mandataire bu liste ànd suñu réew nag la mu daal di proposé nag charge yi bu conseil constitutionnel moo dina ñu rejeté candidature kii di Barthélemy Dias ba noppi daal di koy invalidé liste nationale bu coalition sàmm sa kaddu mu nekk xibaar bi nga xamante ne rek suñu natango yi la solay daal dinañ koy biiral ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñuy jógee foofu dañuy àddu rek wax ci Pape Samba Ndour bi nga xamante ne daal dinañu koy tabb mu nekk directeur publication journal bi di l'observateur moom l'observateur nag daal dinañ am directeur bu yees nag mu nekk Pape Sambare Ndour mi nga xamante ne rek daal dinañu koy tabb ni ki démb ko tabb nag di Birane Ndour mi nekk directeur général bu groupe Futurs Médias média ki di Pape Sambé moom ci Sambare euh, moom ci jëmi boppam rek dina door nag liggéeyam euh, ni ki euh, tey jii daal di wutu kii fa nekkoon di Ndiaga Ndiaye mi nga xamante ne rek moom moo nekkoon ci boobule poste depuis 18 août 2020 jamono ji nag moom ci jëmi boppam rek daal dinañu koy tabbaat yeneen i fonction ba tey nag ci wàllum xibaar ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci règlement intérieur bi nga xamante rek defoon nañ ko ci établissement public bi ak privé yi li nga xamante ne rek moom mooy muuru ak teekora ne nag nangu nañ ko ci école yi mu nekk nag arrêté interministériel waaye nag mu nekk arrêté boo xamante ne rek jëwriñ bu ñu denk wàllum éducation nationale nag moom ci jëmi boppam rek daal dinay gis ne loolu yëpp ay principe la te dafa bokk nag ci règlement intérieur bu établissement privé wala public mu ñeel nag njàng mi ak formation fii ci réew bu Sénégal ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci kaddu yi nga xamante ne rek kii di Marvel Ndoye daat na ko yëkkati ne na jërëjëf nag madame Aïssa Camara mi nga xamante ne rek daat nay waxal askanu Sénégal mi nga xamante ne dafa yàgg sëngeem kii di madame Camara ne na ko nag ay sénégalais yu bari nag jamono ji daat nañuy jaajëfal bu baax nag waaye sargal la rek ginnaaw ba nga leen waxee leen naqar bi nga xamante ne rek doon nañu ko dund ci nguur ko Macky Sall ak ñamu àndal ak ay xale yi nga xamante ne rek jot nañ leen faan ci adab bu doy waar mu nekk nag mbir moo xamante ne du yàgg dara rek bu soobee suñu suñu borom ñom ñoñu nak dañu ko layoo ak yàlla suñu borom ba rek ki nga xamante rek moom mooy Marvel mu daal di rek moo di ne naam sax ñu ngay daal rek attitude yu nu mel waaye nag dañoo daal gis ne rek ñoom ñooñu nag rawatina comportement bi nga xamante rek soxnaam si di Marème Faye Sall daal di woon na na mbir moo xamante rek loolu lañu def Sénégalais yi moo gën a yees ay saaga ne nag bu kenn jaaxle ci réaction bi nga xamante rek def nañu ko ci diirëpp juróomi at yi nga xamante ne moom

citoyen sénégalais ci xolu million citoyen sénégalais yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci bit réew mi naam sax moom ci jëmmi boppam rek xëy na nag du manqué rek ku ko wax ne ko nag li nga xamante ne def nga ko daal jaaduwul xanaa ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy fenkat yi ak narkat yi ñoom ñooy daal di wax lool moom ci jëmmi boppam rek yemu ca moom Marvendo nee na nag membre APR ak yu Benno Yaakaar ak mouvement journaliste chroniqueur yi nga xamante ne rek doon nañ fi nekkal nag njiitum réew mi nag ngir mën a rek feesa seeni gafaka ak ñenn ci patron de presse yi nga xamante ne rek ay caaga lañu du sama kaddu ba tey rek Marvendo moom moo ko daal di xam le na nag alliance des politiciens Yuda euh, Majid Majji moom ci jëmmi boppam nekk na ab mbir moo xamante ne rek dafa daal di wane affaire pro système dëgg waaye nag ñoom ñëpp ay complice lañ rek ci jës ji ñaaw ji nga xamante ne rek amoon na fi ci juróom ñett fukk ak juróom doomu aadama yi nga xamante ne rek daal di nañu réer mër ak ñi nga xamante ne rek daal di nañu génn biit réew mu di toll ci mille cent jeunes mille cinq cent jeunes euh, citoyens yoo xamante ne rek jamono ji ay innocent lañ ci biir ak ak ñi nga xamante ne rek jot nañ leen di mbugal mbugal bu metti ak ñi nga xamante ne rek doon gis souvent ñuy takk nag lii di bracelet Pastef ci mbir mu nu mel nag nee na gis nañu membre cartel waye nag ñoom ñooñu waxuñ ci lenn te fekkee nañu lépp nag waaye jamono ji nag li nga xamante ne daal moom moo daal di am moo di nag caga yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy euh, fankat yi nag ñoom ñoo fi nekk rek di jàppale nag ci jëf ji nga xamante ne rek première dame bi daal dina koy def nee na nag 90 pour cent ci askan wi ci seen jëmmi bopp rek ñu ci bëri rek ñu ngi doon xaar nag procès Ousmane Sonko bi nga xamante ni rek doon nañ ko waajal ngir mën ko xeex nag ci élection yi nga xamante ni rek doon nañ ko amal waaye nag ñoom ñooñu buñ mënoon sax konoon sax dinañu ko def sans ñu hésité waaye nag nee na daal ma ngay dalal bu baax xelu kii di madame Camara mi nga xamante ne rek daal dina yëkkati nag yooyu le kaddu daal di koy jagleel nag ki fi nekkoon président de la république ba wax ko rek li nga xamante ne rek jotoon na fee xew ba mars 2024 nee na nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon def défendre ak ak ñi nga xamante ne faatoon nañ bokk nag opposition bi doon manifesté ak ñi nga xamante rek daal euh, ko yi nga xamante ne ko doon euh, sàcc waaye nag yàgg nañoo défendre rek lépp loo xamante ne rek sañ-sañ la ginnaaw nag bi ñu fi gisee am na ci ñoo xamante ne rek ñoo fi nekkoon di dagg réseaux sociaux yeeg internet yi di tëj télé yi ba noppi rek di daal di rek noppiloo ñi lii di opposition bi am na tamit ñu fi nekkoon ñoo xamante ne rek doon nañ défendre ay nit yoo xamante ne rek dañ doon jël nag li nga xamante ne moom mooy justice bi nag daal di koy mbubboo di ko xeexee ci juróom benn weer képp rek ñoom ñooñu si seen jëmmi bopp rek taxaw naan dañuy défendre sañ-sañu kii di Bah Diakhaté amee Suzanne Camara ak mercenaire bii di Madiambal Diagne ak yi nga xamante ne rek moom mooy Bougane ak yeneen yi nga xamante ne rek ñoom ñoo fi doon saaga président de la république ak ki nga xamante ne moom mooy Elimane Diagne bu njëkk bi tey ñu ne nag loolu yëpp nañ ci démocratie la ñu daal di nekk ne na nag bu ñu jaaxlee daal nañu xool li nga xamante ne rek moom moo jotoon am ta daal di fàttali nag ñu fi nekkoon ci nguur gi rawatina ancien président bilan bu doy waar bi nga xamante ne rek daal ko fi bàyyi muy sàcc ak njuuj njaaj ak lewal alalu askan wi ñaata nit wala sax ñaata citoyen ci seen jëmmi bopp rek ñoom ñoo daal di loru rek ci nguuru ko président ba woon moom ci jëmmi boppam rek di doon jëfee ordre yi jógee ko ci Macron wala Biden ngir nag mën a wéyal rek ay collaborateur am ba noppi daal di accuser nag ay complicité ci li xewoon foofu ca diwaan boo Gaza ci mbir mu nu mel nag ndax du am ay njeexital lekk ci sortie doy waar yi nga xamante ne rek defoon na ko ne en tant que li nga xamante ne rek moom ñeel nag trian ci biit réew mi ndax nag dafa daal di gis na rek yëf yi nag am na ci loo xamante ne daal moom ci jëm boppam moom war a ndax nag def na fi ay menaces yoo xamante ne rek ba nëga ni rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot gi loru wala ñu faatulee ba léegi rek ña ngi koy daal di xalaat jot na nag mu daal di assumé rek li nga xamante ne moom la def jaarale ko ci loi amnistie bi nga xamante ne rek moom mooy rag bépp jëf ak manifestation ndax mbir mu nu mel kooku mérité na ab considération mu daal di cay yokk ba tey moom Marvel Ndoye nee na ko nag madame kamara askanu Sénégal wërngal këpp rek daal ñu kontaan ñu dul kontaan kay mooy crapulier ak ñi nga xamante ne nag dara saful leen ñoom si seen jëmmi bopp waaye jàppal ne rek ña ngi lay jaajëfal bu baax nag fépp foo mënti nekk waaye nag di ñaan yàlla taxawula bu baax a baax ba nga génn si jafe-jafe yi ne nag nañu bàyyi vampire yi nga xamante ne rek ñoom ñooñu deretu askan rek lañu tàmm di dunde waaye nak jamono ji nañu dal di eh, xam ne rek eh, bés dina ñëw nak dinañ wax waaye nak ku yàgg reg rek bu yàggee sa biir dana fees sa eh, biir bu feesee di nga waxtadoo xelaat di kaddu kii di marvel ndoy di ngeen jëf ci ant bi bu leen fàttee abonné post colos de notification ngir mën a am yeneen xibaar